bëggee waa Fann lu ñu dal daf ñu métti ñu mënuñu nangu tey suba ba léegi ñu ngi ñuy jaay doole presse a ñëw di vidéo li ñu vidéo ñu téye leen benn presse TFM fi ko téye waa Descos man mi li wax ak yéen dama doon filmer sama ko jël benn commandant Descos boo ne boo waxu ñun ban Sénégal lañ nekk ñu amuñu droit tey ñu ne néewal doole ñu jël suñuy téléphone comme nanguwuñu presse bi dugg ci biir ñu jël suñuy téléphone vidéo journal bi ñu ko fa téye il a fallu presse am ñu jël yaa ngi dégg ñun nag suñu papa yi depuis 45 ans ñu fi dëkk man fii laa dëkk j'ai 32 ans fii laa juddoo ci camp bi sama papa école yi tabax na ko ci àll bi fu nekk tabax na ko Koumpentoum fu nekk dem na fa armée français ànd ñoom di tabax pour lan rien que sénégalais yi jàng xale yi ndaw yi jàng femmes yi faju mais ñooñu bu ñu retraité tey lu mu dee dee dee sax état sénégalais delloo leen njukkal mais tey gis nañ fi ay femmes yi dem ci ay femmes armée yi dem nañ leen ay millions nan ñu génneel kayit yoo xam ne état français moo ñu fay ay millions ñun joxuñu dara vidéo yaa ngi fii yaa ngi dégg ministre ministre premier ministre français ba mu ñëwee di wax dafa ne non non on va faire un geste social geste social bi nag état moo ko féete woo ba léegi état Sénégal gisuñu ko 2012 ba léegi armée beeg ñuy jaay doole tey des ko la fi ñëw àndal jaay ñu doole tribunal ñun la jox dëgg yoon àtte jox ñu dëgg ñu ñuy jaay doole mais ñun ban Sénégal la ñu nekk kayit yaa ngi ñu ngi ak ñoom ñu ñëpp a génn suñu bi bi tabaski ba léegi ñu ngi ñuy indil sommation jëluñu sommation jëluñu dara mais ñun ban Sénégal la ñu nekk ban Sénégal la ñu nekk tey dañoo son sama papa mu ngi dafa daanu feebar tension bee ko daaneel sapeur yi ngi nii ñoo fi jël si leen mais Macky Sall mais nañu waxante dëgg nañu waxante dëgg nañu waxante dëgg sama nangu jël nan la ma yóbbu dañ ma doon tëj gendarmerie dañ ma doon yóbbu naan la filmer sama portable li ma moom sama portable nag yóbbu nañ ko ko jëlee may ko jël avant ngi naa nag ko ko waaye bu ko mu ne président wax naa ko ko waaye ñu ngi ñaan président mu tracé si lii tracé dëgg na tracé dëgg parce que de parce que bañ koy votel li Iran waxoon bañ koy votel ñëpp ko taxaw votel ko li Iran wax collègue ñi taxawoon votel la tey respecté leen leen ku retraité nga jël ay bagage am tasaare ko ci sommation wu 10 locataire sa boo ko luwee sa kër di ko may 6 mois mu uti fu mu dem ci ñoo xam ne plus de 30 ans 30 ans ñu ngi dëkk fii ay père de famille ñu ngi ci pandémie xale yaa ngi def examen bac. nga tasaare ay famille six heures du nga yee leen jaxase seen xel yi bu fekkee ci réew mi lañ dëkk ay sénégalais lañ nañ ñu aate ñu ngi nii naq nit ñi ci biir camp bi ban journaliste yi dugg nangu téléphone jàmbur yi parce que xam nekkuñu ci yoon bu ñuy def teguñu ko ci yoon bu dee ci réew mi lañ dëkk ay citoyen lañ nañ ñu wax ñun nag ndax Sénégal lañ dëkk wala Guinée lañu dëkk dañu sonn dafa ñaaw lii dafa ñaaw lii dafa ñaaw lii dafa ñaaw lii dafa ñaaw. dama ni lii ñu def tey dafa ñaaw. fekk ay famille à 6 heures du matin nga ñëw yee famille café sax mënuñu ko naan mu jàll suñu puti lii dafa ñaaw xale yu ndaw yi maire yi kenn mënul jug ñëpp seeni cër bañ nañu ñoom ñëpp ñi ngi sukk ci suuf. métit suba ba léegi xoolal 6 heures du matin ndox mënul jàll suñu biir put yi évacuer jigéenu biir benn paa boo xamante ne dafa AVC mu daanu ñooñu tey yàlla tere bu ñu desee suñuy loxo ñoom ñooñu ko teg ah. ñoo ngi ni génnee ñu suñuy bagage a ngi sibiti amuñu fu ñu dëkk lépp lu ñu filmé ñoom nangu nañ ko nangu portable yi est-ce que loolu yoon ak fi réew mi toll fi réew mi toll damay laajte ndax ñun ay sénégalais lañu wala ñun ay burundais lañu ah. fekk ñu jaay ñu doole génnee ñu ñuy toroxal ñu lii dafa ñaaw. lii dafa ñaaw. waaw ma lii du yoon. son sëñ bi ñu ngi ziar baax xëy na xolam moo fees parce que tey ku fi yow nekk rek sa xol fees na. ay jigéen bii sax dañu doon daanu te ambulance sànq ba léegi mu ngi dafa def ay va et vient pour mën a récupérer ñi nga xamante ni ñu ngi daanu voilà. man mii di wax ak yow fii laa juddoo hôpital principal bii laa juddoo kon nag ça fait kon ça date de longtemps taru man sama benn mag mi ngi Kolda fii la juddoo kon nag Sénégal ñu ngi ñaan ñu ngi ñaan ñu ngi ñaan Macky Sall muy président muy jiite nday ñëpp moo xam ne moo yar réew mi. mu àtte ci lii mu àtte ci lii parce que man si ma sago Macky Sall yëgul li fi ne. Macky Sall yëgul li fi ne ñun nag ay citoyen lañ du ñu yàq. lu jëmale Sénégal kanam corniche baa ngi nii mën na ko baare mais duñ def. 2012 ba léegi ñun ñuy mais ñun lu la ba léegi Abdoulaye Wade ñëw na fi visité ma camp yi moo dàq si camp yëpp ñi na Wakaam ba mu demee Wakaam ba mu demee Wakaam camp Wakaam bi nekk foofu euh, bâche daf ne camp yëpp visité naa ko bañ nekk moom ba mu ñëwee si dugul si biir parce que si bis la dugg moo Karim jamono sama sama rappel très bien Pape Diop moo doon euh, président assemblée mu dugg si bis mu ne ah man de visite naa kaayu mbéy camp bi moo dàq si camp mu bañ ko interpellé gendarmerie nañu war na am na Ablaye taxaw mais Ablaye ak nu mu mel ak saaf baaxam ak dignitéem mu ne taxaw leen constat moo ko arrêté Ablaye da ko arrêté ne la lu xew ñu ne ko ñun ay six maisons lañ fay dëkk six maisons yi fi dëkk la Ablaye ne ah loolu de tubaab bi bañ may jox caabi camp bi waxuñu ma ne am na africain fii dëkk comprendre nga mu ne la comme loolu la jox leen ma ko dinaa ko réglé Abdoulaye ba mu demee fële man maa koy seetaan RTS boo leen demee ASTV RTS di ko fa gis mu ne dem naa kaa mais cité collègue moo man kaa mi bëggoon naa ko jox ministre def ko cité ministre laa ko bëggoon def mais dootuma ko defati lool. dinaa ko jox officier yi ak euh, professeurs yi ak les demeurants li wax bu dee du dëgg bu dee du dëgg bu dem leen RTS ngeen xool ko fa ñun nag 2012 ba léegi dem nañ ñoom tribunal dem nañ tribunal tribunal atte na tranché na tribunal nee na fii Descos mënuñu fee jëndee. fii armée mënuñu fee génne fii état judiciaire moo mën a soxla suuf si ne ah damaa soxla suuf si lii laa si bëgg a def ngeen waxtaan si kàddoo ba leen jubóo mu dédommagé la ngeen dem ba bañu ñoo dem mais ak demin ba na nga koy demee